l'homme de l'année mu nekk loo xam ne rek dañ koy choisir at bu ne loolee nag askan wi daan nañ ci àddu ku nekk rek daal di wax critère yi nga xam ne moom lañ koy tànnee ak ki nga xam ne rek moom lañ joxoñ ne kookee moo nekk homme de l'année. boo doon choisir tey homme de l'année tey kan lay doon pour yow. ah su ma ko doon choisir xam na waa nit ñaa ngi boo xoolee gars yi seen xel day dem si artistes yi ñi si footballeurs yi comédiens yi mais man je pense que kenn gënu ko yellool xalif euh, général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké ren sekkeen yee ko jël daaw njaayeen la woon ci problème dragon ren sekkeen yi ci problème Idrissa Seck ak Cheikh Yérim Seck mu ñuy junj muy leer ñoom ñoo ko moom ren. xanaa feebar bi corona bi moo fi sës fu mu nekk nii moo lëmbee adduna bi yëpp. moom moo téye dëkk bi yëpp dëkk bi yëpp moo ko téye monde bi yëpp sax laay wax. l'homme de l'année day liggéey teel a xëy guddee wàcc du sàcc du dugg si lu yoonam nekkul. yaakaar naa affaire yooyu bu ko lom da bu ko bu ko nit amee mun naa nekk lom da la ne du dëgg. voilà critères yi tax jaloore yi mu def ko dafa marqué fait yi gën a saillant si année deux mille deux mille vingt bi par exemple bi nga gën a ndaw mooy euh, d' abord inauguration Massalikul Jinaan xam nga histoire taarixu murit léegi foo ko waxee da nga ko ciy boole te moom moo tombé mu nekk si xalifa bi kilaafa gi quoi beneen bi Covid bi mu ñëwee mooy le premier acteur bu débloqué. deux cent millions joxe ko pour jàppale état bi sensibiliser dem na ba effet de mode la nekkoon takkal sa masque ngir roy sëriñ bi xam loolu ku ko def si sensibilisation ah si ci yee askan bi kooku am da la ne mënoo ko kenn gënuloo ko mérité beneen bi aussi euh, ñi ngi wax université Touba ñu feta fa tabax université bu mag xam nga œuvre yooyu noonu yëpp mu koy def kon kooku amul lu dul moom kenn gënu ko méritant encore une fois xam nga tey fësul si télé bi yëkkatiwul kàddu yu ñagas wala bëgg siiw rek bëgg buzz wax ko non dafa def ay actes yoo xamante ni yoo xamante ni yow yow da nga naan kii en tant que xalifa tey lu mu woote rek nit ñi kon dinañ si si dem ba jeex même boo bokk ci communauté boobu noonu da nga si dem ba jeex parce que ñoom moom moo xam nga kilifa bu toogee ñuy wax ay waxu par exemple masque tey pour état bi solo masque mi ñi rek problème la sëriñ bi ñëw tey roy leen si man ngeen takk seen masque xam nga. idi fu mu génn fu ñu foogul woon moo tax ñu jox ko ren na ko jël. askan wi loolee lañ ci xalaat mu nekk ay xalaat lu wuute waaye lu ci mun ci am rek na nekk loo xam ne rek luy jëriñ réew mi la ak luy jëriñ askan wi.